الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المؤيد بالنصر والتمكين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين بكي بكيني دغلو اك ني سيتانيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما وابدا تي حضره الشيخ ابو محمد كنت تي ندغال الخليفه دي خليفه طريقه القادريه شيخ البكاي ابن ابيه شيخ البكاي ابن شخبي محمد ابن شخبي نعم الكنتي موم ان جابوت جيكو يالا دينك موي جابوتو كنتيو اك جابوتو روح مودي نيغا خامني نيوم لا بوكال باس باس ci tariqa ñoo ngi delluwaat di yeesal ñaan ak massawu ci li nga xam ni moo dal ci kaw réew mi mu di bokk yi nga xam ni yàlla dogal na ñu defoon accident boo xam ni accident bu metti la ci dëkk bi ñu wax six kilo ci wetu Kaffrine muy war rek di massaw njabot gi yeb di jale wat waye di dolle ci wat bopam ak njabot gi ci li nga xamni ni neex suñu borom te mu di ko dogal di wacc ci jambi deug la ñaare nit ci xelam mu gàtt dana jël sabab def ko muy dogal sabab dina am te lañ ca namm du am sabab dina ñàkk am itam dogalu yàlla ñëw kon <clears throat> bu sabab amee tombek dogalu yàlla ki nga xam ni dafay natt rekk ci xelam daf naan sabab bi dong la waaye bu ci diine àndee muy nangu dogal xam ni lu yàlla dugalul loxoom du sotti danaan ah ay la yewén day sabab bi am na waaye dogal bi tàbbi na loolu mooy li nga xam ni tey moo dal bokk yi nga xam ni faatu nañu وجدت بلاسي تي اكسيدان بو ميتي بيغا خامني دال نا تي كاو ريومي ييب سوكو دافي كون في موي ديلو بوبام موم سيرين بي دافا ديلو نجابوت جي جولي تي ييب مودي لي يالا واخ تي القران ريك الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun yàlla nee na ñi nga xam ni musibam dee da ko dogal ci seen kaw ak nu mu mën a amee nag moo xam ci kawlal bi la moo xam ci hôpital bi la moo xam ci mbedd mi la moo xam fu mu mën a ame su ay bokkam ak i jegeñaaleem ak jullit ñi nga xam ni ñoom lañu ko seqal suñu jëlee seen bopp delloo ko ci yàlla ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun baat boobu li muy tekki moo di nun ñëpp yàlla nu bokk moom fi mu nu bàyyi it moo nu fi ba waaye bés ngi ñëw ñun ñëpp daañu delluwaat ci moom nee na day njabootam gi ci kaw suuf moom yàlla subhaanahu wa taala bu ñu jëlee mbir mi delloo ko foofu am na lu mu leen dig muy kado boo xam ne daf leen koy jox ulaika alayhim salawatun min rabbihim ñoom day kàggu yërmande ak sàq ya ak pono yu bari yi dana wàcc ci seen kaw yàlla dina leen jéggal boole ko yërmande yàlla it ni soo bëggee gis dëgg dëgg dëgg ñu jub mooy seetal ñooñu kon li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax rek moo ci nekk moo di as-sabru inda sadmati l ula muñ dëgg-dëgg mu nga ca dal bu njëkk ba dal bi day metti lool ab jullit nag bu nangoo dogalu yàlla ak nu mu mën a ñëwee <clears throat> dana ko nangu ko jàmbat dana ko nangu te du saalit dana ko nangul yàlla xam ni lillahi ma ata wa lahu ma axad yàlla moom moom li mu joxe muy nun ñi fi des ak sunu njaboot waaye la mu jël ci njaboot gi itam yàlla dong nga ko moom keneen du ko xëccoog moom kon ci yërmandeem moom ak ci ñeewanteem ak ci mbaaxam ak yaatoo moom yàlla ci la joxe ton yi yërmande jooju ak njéggal li ci ki nga xam ne musibam dee wàcc na ci kawam mu jël boppam ak léppam delloo yàlla nangu dogal bi su ko neexoon moom yàlla mu ne dinaa ko def mu neex la mu naqari la nga gërëm nga ñàkk gërëm duma la fay dara te kenn du ci man dara aye su jiitalee yërmande ak ngëneel wax ni soo delloo see sa bopp ci moom mu tàbbal ci sa kaw yërmande njëggal tagg la it ne yaa ngi bokk ci woy njub ya loolu ñetti tono la yoo xam ni kenn mënu koo defal kenn ku dul suñu borom subhanahu wa su ko defee itam ci biir loolu yàlla dafa am lu mu santaane ñu garanti ko garantil ko njabootam la mu santaane pour ñu garanti ko daf cee bokk deretu nit ki muy bakkanam kenn du tuur deretu nit te tey ko déedéet alalam yàlla xaraamal na ko ko yàq deram yàlla rëbb na ku ko tilimal loolu su amee nga xam ni kaaraange joo xam ni yàlla daf ko teg njaboot gi kenn ku ci nekk war koo jox sa moroom sàmmal ko ko su amee dama wax ni ki yàpp ay client ci oto war a dem ak ñoom ci bërëb na bàyyi xel ci ni ay bakkan la yàpp ak lu mën a xew bakkan yooyu tey ci responsabilité am la ñu ne moom chauffeur bi kon na xool fi muy jaar xool na mu fay jaare ak naka la fay jaare loolu dafay am solo na xool fi muy jaar xool na mu fay jaare ak kañ la fay jaar fay am solo tukki dafa am waxtu yàlla daf ko yaxanal ni tukki su dajalewul charte yi nga xam ni moom teg na ko muy doxalin woo xam ne da ko wàcce ci diine ji jox ñu ko booba tukki day xaram bi ci jëkk mooy li la tax a jóg na doon lu dagan na doon lu neex yàlla bi ci des moo di fi nga jëm yoon wa ngay jaar ba ba ngay yegg na ko wóolu na doon yoon woo xam ni amul addu kalpe amul danger boo xam ni lu la ca dal dañu naan yow yaa ko def sa bopp ba kon na bàyyi xel yoon wi ngay jaar bàyyil xel itam waruwaay wi nga yor ndax waruwaay wi wóor na pour nga war ko dem pour nga war cee dem wala wóorul yooyu charte su dajewul ci tukki dafay daldi di xaram ci nit ki mu tukki ndax yàlla lépp daf ko organiser nit ñi nag ñu ci bari dañoo jël diine rek yamale ko ci jàkka ji yamale ko ci takku sëy yi yamale ko ci dëj yi te wallahi diine ëpp na loolu <clears throat> mais dafa ñëw organiser dundu doomu aadama fa muy dugg ci néeg bi ak fa mu tëdd ci lal bi ak fa muy demee ci wanag wi ak na mu cay génne ak bu yeewoo ban tànk la war a jiital ak lu mu war a wax ak lan la war a yéene buy dox kon yàlla dafa organise lépp ki sonn nag mooy ki bàyyi fële mbir yàlla jël xelam di ko doxal kooku lu ko dal moo ko teg boppam loolu mooy li nga xam ne moo am te muy dëgg su ko defee kon responsabilité jël nit ci waruwaay war koo yóbbu ci béréb responsabilité la benn ñi moom oto yi nañu xool ñi ñu koy jox ñan la ndax ñooñu am nañu maturité ndax am nañu responsabilité ndax am na ñu xel moo xam ne dina ñu sàmmanteeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci oto bi moo leen yóbbu ay bakkan lañu waxatuma chauffeur bi mais dama wax borom oto bi ndax lu ci bari jëkkante moo koy indi yàkkamti sa wërsëg moo koy indi di nga teg oto bi lu mu àttanul dugal ci nit ñoo xam ni ëllëg bu catastrophe amee lii am ba ñëpp di ko jooy te mu metti loolu mooy am mbaalu ko raw loolu nag wax dëgg yàlla nit ñi ñoo ci dugal seen loxo yàlla fekk leen ca dogalam kon il faut que ñu bàyyi xel ci waruwaay yi bàyyi xel ci yoon yi ñuy jaar waaye ñu bàyyi xel itam ci ñi nga xam ne ñoo taxaw ci yoon wi di war a contrôler oto yi ndax oto boo amul assurance ñaari fan ñetti fan mbaa semaine muy daw waris naa mën a saytu ndax koo koy am na assurance wala déet parce que yoon yi ndawil buur a ngi ci taxaw kon war na ñoo mën a xool ndax bii oto war naa daw wala warta daw loolu itam kenn ku ci nekk ak responsabilité bi nga yor na ko bàyyi xel chauffeur bi am na responsabilité borom oto bi am na responsabilité client bi dugg ci oto bii am na responsabilité ci natt tukkeem ndax jaadu na wala jaaduwul xool itam ndax fii nga xam ni war na fee dugg ndax nombre bi ëpp na wala ëpp su ëppee waru cee dugg ndax réglement la su ko defee ki nekk ci yoon wi di contrôler itam am na responsabilité moom itam kenn ku ci nekk kon bu jëlee responsabilité rek yaakaar naa ni incha allahu taala su dal bi dee amit dootul nekk dal bu mel nii waaye dal bu sedd lay doon ku dund nag ala kulli xaal di nga dee waaw ah, loolu mënul ñàkk du dëgg wante dee dafa am deewin dee dafa am deewin am na deewin yoo xam ne wax dëgg yàlla bu amee itam ñaare loxo nit kaa ngi ci ndax nit ki xaru dee waaye loxoom a ngi ci nit ki jaar fu mu war jaar itam ba dara dal ko fa loxoom a ngi ci nit ku dugg fi mu war te dugg itam loxoom a nga ca bu ko ci dee fekkee kon yooyu yëpp nañ ko boole sàmm ndax nit dafa foor te yàlla daf ko réyal mu doon loo xam ni daf ko jox àddina tàggatal ko lépp lu nekk ci àddina mu tàggatal ko doomu aadama mu nekk njëriñal doomu aadama kon kooku waru ko fayee warul fayee itam boppam na xam li ko yàlla jox xam ni kilifa la ko yàlla def waaye def ko moo muy koo xam ne ku doya di la déedéet parce que àddina ak li muy rëy rëy ak li ci nekk lépp nit tax yàlla sàkk ko nga loolu yaa ngi koy noyyi fayoo dara te moonte ku feebar tey bu demee hôpital oxygène bi nga koy jaay njëg lu cher lay doon yaa ngi koy noyyi te yàlla la ko jox suuf si dafa la ko tàggatal nga mën cee dox mu wacc ndoxam di ko genn ci biir suuf si nga war ci mën dund asaman si nonu jant bi it mu def ko lo xamni dafa mengo ak sa deret mengo ak sa yaram ba nga man ci jariñu wer wi nonu guddi gi nonu bëccëg bi nonu kon yow kilifa nga yow doomu adama bul foye sa bop bul nangu it ku la foyee kon serigne baa ngi koy ñaaxee njaboot gi yépp di len ci lo xel di wax nak ni mi ngi wat di talal suñu borom loxom loxoy xolam. di ko ñaan moom sëriñ bi yàlla def dolli fi jàmm yàlla na fi dolli jàmm ci réew mi ndax kat damay wax toujours ni li ngeen bokk te mënu leen koo seddoo te kenn du ko baal sa moroom te faw ngeen dund ko nañu seet dundin bi na dundin bi rafet senegal ñëpp ko bokk te kenn mënu koo baal sa moroom te faw ñu dund ko kon ngalawaay nañ ko dund dund bi rafet dund bu rafet nag mu ngi commencé ci ñu woddu làmmiñ yi wax dafa garaaw wax mën naa dugal nit àjjana mais mën naa dugal nit sawara wax mën na indi jàmm ak dal mais wax mën naa indi fitna kon nañu woddaat làmmiñ yi réseaux sociaux yi li ci génn ci wax ñi du ko dégg ku xam Senegal, ci senegal tay wallahi di nga tit di nga jaxlé té do xam fan ngay tek sa tank deng sutura dafa am solo té yalla bu bu la suturaalee suturaalee sa bop so démé ëlëk mu sangal mbalan sutura waaye bu la suturaalee nga wëlbati ko wër sa bop bu ëllëgee yalla wër la kon werante bi nañ ko bayyi nañu bayyi werante bi tay waxante lu rafet senegal ñëpp ko bokku benn bop la te mënuñu ko séddoo te faaw ñu dund ko sëriñ bi ne mi ngi woon ñëpp ci jàmm ak sutura ak dal mi ngi ko ñaanal suñu borom di ñaanal itam nag nattu ngoy diinam yi fi ne te ngànk diine ji moom itam mu ngi leen di tàllal loxoom di leen tàllal loxoy xolam ñoom ñëpp ñu ànd kenn ku ci ne li la diina sant ci taxawaay mu jëm ci sa bopp ak sa njaboot jëm ci biir réew mi yal na la ko yàlla kartanal ba nga mën ko taxawee ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax itam bu jaaxle amee tiitaange am ñëpp dañuy dellu siwaat ci kilifa diine yi kon ñoom it am nañu responsabilité damay wax toujours ni kilifa diine li ko yàlla jox ci doomu aadama jox ko buur jox ko buur li ko yàlla jox ci doomu aadama dafa tuuti parce que cëri biti la ko jox mën na koo téye ci béréb mën na koo tëj bu ko neexee mën na ko génn réew mi bu ko neexee waaye mënu ko forcer mu bëgg ko déedéet mënu ko sëriñ nag yàlla daf ko jox mu war a liggéey ci xolu doomu adama ba xolam nangu bu xol bi nangoo cër yëpp nangu kon sëriñ moo ëpp responsabilité kon kilifa diine ëpp responsabilité sëriñ bi ne mi ngi koy fàttali boppam di ko fàttali ñi nga xam ne ñoom la bokkal diine ji ñu ŋànk ko ñu ŋànk ko waaye di ko fàttali it waa réew mi yëpp loolu rek la sëriñ bi doon wax ginnaaw bi nga xamee ni jaale na boppam jaalewaat njaboot gi waaye jaale jaalewaale njiitu réew mi itam di rafetlu itam nag taxawaayam bu rafet bu mu taxaw ci lii bi nga xamee ni dal na mu xam ne ah njabootam kat ñoo jaxle tey ñoo am metit ñoo am njàqare mu jóg dagg léppam dem taxawu leen wareef la wareef la ndax foofu mu toog tegu fa boppam askan wee ko fa teg ñaanit yàlla mu dogal bëgg-bëggu askan wi ba mu toog fa kon tey képp koo xam ne sa tànk da doon metti te njiitu réew mi yëg ko waraf la ci moom mu nemmeeku sa tànk boobu ba xam metti bi fan la toll waxuma la ak nag bakkan yoo xam ne dafa rot kon ndokk yàlla bi nga xamee ne loolu waraf la mu jóg def ko defin wu rafet bi moom itam sëriñ bi neen mi ngi koy gërëm di ko ñaanal euh, yàlla subhanahu wa di ñaan itam ñi nga xam ne ñoo jiitu yàlla xëpp ci seen kaw yërmande ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah, sëriñ bi nag mi ngi sant daara ji nga xam ne moo fi nekk muy daara alquranul karim ni ajjuma incha allahu taala kaamil yu ñu daan wàcce nañu ko jagleel ñi nga xam ni tey ñoo ñëw wujju nañu seen boroom ci accident bi nga xam ni am na ak ña fekki ak ñi di fekki ak ñañu fekki ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak xormay alquranul karim kon ajuma incha allahu taala ci ndigalu imaamu ratib Sidi Omar Cheikh Sidi Omar incha allah ñëpp daañu fa daje bu ñu jullee juma ba noppi euh, dolli ci kamil yi nga xam ni moom la daara ji daan wàcce su ko defee ñu jagleel ko ñi nga xam ni ñoo jiitu ci mbir mi ak ña jiitu ci ay jullit ak ña tegu ci ay jullit yàlla na yeex ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam aqulu qawli hada wa astaghfirullaha lii wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk di seen doomu ndey di seen xarit di taalibe bu doye di ñu ne ko Abdourahmane Kunta mu yore kàddu sëriñ bi ak njabootu kunti doon jottaliwaat kàddu sëriñ bi ak kàddu njaboot gi ci li nga xam ni moom la ñu génn léegi muy wax ji nga xam ni moom lañu doon wax lépp loo xam ni jub na kooku ndimbalal yàlla su amee dara lu ca dëng itam nag matadi doomu aadama rekk la ñoo ngi jéggalu yàlla di jéggalu ñu ñuy seetaan ak ñu ñuy déglu wasalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu.